jigéen ñi ak yàlla sunu nettali tey ji mooy rut tànn na yàllay naw mi nettali bi mu ngi cosaanoo ci rut saar benn ba ñeent macca saar benn aay juróom ba juróom benn tawret bi lim ya saar ñaar fukk ak ñett aaya ñaar fukk ak ñaar ak sarti giiri liwi saar ñaar fukk gannaaw bi waa Israël delloo ci seen réewu maam yi ci jamono njiit yi yoroon réew mi amoon na ak góor gu dëkkoon Betleyem te bokkoon ci askanu Yuda jamono yooyu xiif amoon na ca réew ma góor googu te mu doon Elimelek daldi jël mi jabaram ak ñaari doomam yu góor Malon ak Kiliyon dem ca réew Moab ca gannaaw dex ga ñu teg ci diir bu ndaw góor ga daldi génn àddina ñaari doom yu góor ya ku nekk jël fa jabar ci jigéeni Moab kenn ki mu ngi tuddoon Orpa kenn ki Rut waaye gannaaw fukki at ñaari xale yu góor ya dee ñoom itam noonu naw mi des moom dong ak ñaari jabari doom ya bi naw mi yëgee ne xiif ga jeex na ca réewu Yuda muy waaj ngir dellu réew ma Naomi ne ñaari jabari doom ya dellu leen ci seeni kër ndey na leen borom bi won mbaaxam ni ngeen ma ko wone maak seeni jëkkër naleen boroom bi may ku nekk jëkkër noonu mu fóon leen ku nekk ñuy jooy ne ko dañuy ànd ak yow dem ci sa réew Naomi ne leen déet samay doom man mag la mënatuma am doom yu góor ndax mën ngeen a toog te du ngeen sëy orpofoon naw mi daldi dem waaye rut moom ngoy ne du dem naw mi jàppaat ci ne ne ko àndal ak orpa nga dellu ci sa askan ak ci sa yàlla waaye rut ne ko bu ma jëñ ci ma dem bala fi ngir dellu ci sama askan fooy dem falaay dem foo nekk falaay nekk sa xeet doon sama xeet sa yàlla doon sama yàlla foo dee falaay dee ñu suul ma fa yàlla bu ma leen tàggaleeg yow naw mi xam na ne rut fas na yéene ànd ak moom mu nangu naw mi ak rut dellu beteleyam ci jamono ngóob la woon naw mi amoon na menn mbokkam mu ñuy wax bowaas ku am daraja la woon rut ñaan naw mi mu may ko mu dem liggéeyi ca ngóob ma ngir ñu am lu ñu lekk waaye tool bi rut dem toolu boos la woon te bowas amul woon jabar bowas laaj ñi doon góob ndaw si jigéenu kan la ñu tontu ko waa mowaab la mi la àndal bi muy ñibbisi dafa ñëwoon ñaan ñu may ko mu bokk ci ngóob mi te liggéey na ci suba ba léegi noonu bowas ne rut bul dem góobi ci beneen tool toogal ak samay surga yu jigéen wax naa samay surga yu góor bu la kenn laal boo maree demal naan ci samay njaq rut daldi sukk teg jéem ci suuf ne lan laa def ba nga ràññee ma nii man mi ab doxandéem boas ne ko wax nañu ma lépp li nga def ni nga bàyyee sa ndey ak sa baay ñëw dëkk ci biir aw xeet woo xamul na la borom bi di yàllaay Israël mi nga làqu ci moom dellu ba mu doy li nga def boas may rut pep mu ñu saaf rut daldi ci dencal naw mi bi mu delloo mu nettali naw mi ci ban tool la demoon mi ne ko yàlla jógul ci di wone mbaaxam góor googu am mbokk mu jege la bokk na ñi ñu mën a jëlaat te Bowas waxoon na Rut bu mu dem ci beneen tool ngir bañ ñu def ko dara lu bon benn bés Naomi ne Rut war naa la wutal jëkkër ju la toppatoo bu baax tey la Bowas di bàccilu peppam lay ko sangul xeeñu lu neex te sol say yére yi gën a rafet bu boos lekkee ba noppi ba naan bu tëddee ngir nelaw demal nga muuri ay tànkam dina la wax li nga war a def rut def li ko naw mi wax bi liggéey bi jeexee bi nu lekkee ba noppi ba ñépp ñibbi rut dafa dem tëdd ca tànki bowas ci xaaji guddi la ko bowas gis bowas amoon na mbégte lool ci li ko rut tànn fa la ne ba fajar waaye ñibbi na bala ko kenn gis ca lëg sa li bowas jëkk a def mooy dem ca buntu dëkk ba mu laaj seen menn mbokk mu gënoon a jege elimelek ndax bëgg na jënd toolu elimelek ak i doomam mbokk ma ne waaw waaye bawaas ne ko ki jël tool bi faw mu jëlaale rut mbokk ma daldi xàcci noonu bawas léegi am sañ-sañ jënd tool ba mu jël rut jabar ñu am doom ju góor mi daldi bég lool mu sant yàlla ne mi am na doom ju góor ñu tudde ko obet obed moomu moo jur yese mu jur daawuda fii la nettali bi yem nanu jàng aaye bii maane aji sax ji yaa di sama boroom sama bànneex yépp a ngi ci yow saboor saar fukk ak juróom benn aaye ñaar